mais galvanise aussi les Africains. Mmh. Donc c'est juste pour répondre li nga ma Birame mhm. ma bàyyi continuer. Vous savez que lorsque nous avons décidé ensemble de quitter, mais nous avions des informations plus ou moins précises qu'on voulait attaquer le Niger sous le couvert de la CEDEAO, c'est des forces des pays extra-africains. des pays extra-africains ñoo naroon a jaar ci CEDEAO pour attaquer le Niger. avait utilisé la CEDEAO comme une, un cheval de Troie pour renverser un régime dans un pays de l'AES. Mais nous avions compris très bien. Les balabas dans cette affaire-là, c'est les Maliens. Quand on finir avec les balala, si le Niger tombait, le tour c'est le Burkina. Après, ils vont se concentrer sur le Mali. Mhm. Mais ce qu'ils ont oublié, les époques ont changé. Il y a d'autres dirigeants au Mali, d'autres dirigeants au Niger, d'autres dirigeants au Burkina Faso. Et nous avons fait, contre l'attente de tous ces messieurs-là, une alliance militaire où nous avons été clairs. Je l'ai répété plusieurs fois. Nous n'accepterons pas qu'on touche au d'un de nos partenaires. Et aujourd'hui, nos peuples sont liés par le destin. Nous devons tout faire pour rester ensemble. Nous avons d'ailleurs pas le choix en ce qui concerne les dirigeants. Les peuples sont déjà en avance. Mesdames et messieurs, c'est face à cette situation que le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali, le général Abdurman Chani, ont respectivement intervenu le 16 janvier. Ce qu'on aura constaté, c'est le fil conducteur. On aura vu des hommes de terrain. Ils ne sont pas venus faire de la théorie. Tous des hommes de terrain. ils ne sont pas venus faire de la théorie. C'est clair. <laughs> en résumé, pour dire boo dégloo les trois premiers ministres la nga xamante nii ñoom duñ ay militaires. Mhm. c'est des civils. Choguel euh, Maïga acteur politique la bu ñu ràññee au Mali respecté ko euh, Lamine Zen on peut dire la même chose de même que le premier ministre burkinabé soo leen déggee nga xam ne ñii non seulement wóoluwuñu CEDEAO parce que dañoo jàpp ne CEDEAO dafa am ñeneen ñu koy contrôler premier ministre Mali wax na la ne dañoo bëggoon a jaar ci CEDEAO ay pays étrangers yu bokkul Afrique mhm. très bien bëgg a jaar ci CEDEAO pour attaquer Niger nga dégg le pré le premier ministre burkinabé mu ne la CEDEAO et ses maîtres. ba pare am na lu ci yokk sax à ba mu waxee dañuy attaqué Niger mais dafa ne parce que xam nañ ni Mali mooy mm. le meneur de l'AES. très bien bu ñu ko attaqué attaque Burkina ba après ci la ñuy. installé Mali. ci lañ koy mën a attaqué. mais booba xam nga xam nga. Bazoum avant ñu koy renverser son chef d'état-major général tuddoon tudd Salifou Modi dafa jóge Niger ñëw Mali seet si ñoom Assimi Goïta ba mu ñibbisee dañu ko nommé ambassadeur Émirats Arabes Unis. sori ko yëf très bien alors que ñetti dëkk yooyu suñu àndul maanaam Mali moom rek mën na xeex pendant cent ans terrorisme bi du jigéen puisque ñetti dëkk yooyu dañu am ay frontières bu ñuy tuddee Liptako ak Gourma bu leen maliens yi dàqee ñu daw dugg biir Niger am foofu seen base euh, arrière moo tax bu ñu demee ba nga xamante ni ñaari dëkk ñetti dëkk yooyu bokk nañu euh, euh, benn association mu leer na leen zone boobu nga xamante ni moom laay wax mu tudd Liptako Gourma foofu la terroristes yi daan dajaloo. Mm-hmm. amatuñu aucune chance pour di mener de attaques di jóge ci dëkk bii di dem ci dëkk bële. mais loolu ñi mu métti mais ñoo bëri parce que waa Niger lan lan lay wax lu tax ñu ubbi seen frontière ak beneen parce que dafa am benn dëkk frontalière ak le Niger boo xamante ni ay daf dañ ko wax ba mu leer de waa France ñoo fay entraîner ay terroristes. Hmm? waaw le premier ministre nigérien moo ko wax mu ne France mooy entraîner ay terroristes biir Bénin. beneen bokk CEDEAO ngay wax Niger pour mu ñëw fekk si waat Bénin mi entraîné ay terroristes pour ñu attaqué ko hmm? donc Tinubu moom mag le président bassiru Diomaye dëkk bu mu jiite moo ëpp Sénégal te moom mooy président en exercice de la CEDEAO su bëggee ju indi mhm. hmm? na na ko def mission moom ci boppam mais bu mu envoyé le président Bassirou Diomaye sous prétexte que il a été élu démocratiquement pour muy ñëw di delloo ñoo xamante nii dañoo jàpp ne fañ leen bëgg a yóbbuwaat dañ leen di jàpp njaam foofu di leen di def looloo xamante ne nii neexu leen. est-ce que jëlu en compte le fait que âge am daan il est jeune ba pare peut-être ñoo bokk ak ñoom génération ak comme il a de bons rapports ak ñoom peut-être que il va jouer les bonnes auspices. xam nga xam nga xam nga Ouattara. juboo na ak le lieutenant-colonel Damiba. Mhm. bu defoon coup d'état Burkina Faso. Hmm? pourquoi jaarul ci kooku pour waxtaan ak Assimi Goïta puisque ba ñëw na ba Côte d'Ivoire seet ko jaaralewu ko foofu de au contraire dafa envoyé ay mercenaires Mali pour ñu déstabiliser la transition mali ah, yaa ngi 49 mercenaires. très bien xam ne jamono ji relation entre Abidjan ak Bamako dafa jaxasoo bu baax a baax. xam nga lépp macha allah. <laughs> yaay son professeur. <laughs> c'est toi qui me léegi bu nekkee Côte d'Ivoire Alassane Ouattara moo ko jiite. ñu ne envoyé na Mali ay mercenaires. pour ñu déstabiliser la transition hmm? ñu ne même Alassane Ouattara boobu envoyé na ay euh, comment dire ay mercenaires Burkina Faso pour ñu déstabiliser Burkina Faso Alassane Ouattara moomu mooy le seul président bu taxaw wax ne pare na un contingent bu mën a dem Niger pour attaquer euh, euh, ñoom Abdourahmane Tiani léegi yow Alassane Ouattara moom tant mu ngi CEDEAO mën ngaa wax ak ñee ba ñu ñëw fekk sur la table mënul ne donc moo tax ma jàpp ne c'est une mission impossible boo xamante ne nii président Bassirou Diomaye dafa dugg si ñu ko koy wax au contraire lu mu war a def mooy fexe ba le Sénégal nekk le quatrième pays de l'AES te dinaa ñëw la prochaine fois pour expliquer carte à l'appui que Sénégal waxuma idéologiquement de mais économiquement parce que soo xoolee. Mhm. dëkk yooyu euh, Mali c'est plus de un million de kilomètres carrés. Euh, Niger, c'est plus Cinq de... fois le Sénégal. Très bien, plus de 1 million de kilomètres carrés. Burkina Faso, c'est plus de 600 000 kilomètres carrés. xam nga du dëkku du dëkku yu ndaw. amul ci kenn ku ci féete ci géej gi. Sénégal moo féete ci géej gi. te ñu ñoo am port. très te ñu ñoo am port. wax nga lépp donc économiquement socialement. buñ la ne Abdourahmane Tiani ne la Ibrahim Traoré ñooñu c'est des musulmans ñun ak ñoom daanaka ñoo yem même culture de de toutes les façons Sénégal ak Mali nekkoon nañ benn réew la fédération du Mali mhm. donc yooyu yëpp dinaa si ñëwaat mais il faut nga jot na mais comme euh, euh, am nañu quinze minutes de retard <laughs> donc dinañu dolli quinze minutes <laughs> dix minutes dix minutes cinq minutes dem na mais amoon na keroog loo waxoon lu am solo te nga dañ ci revenir tey mhm. yaa ngi wax suñuy a Hmm. non lu tax loolu ba nga ko waxee les gens sont restés sur leur faim parce que am dañoo décoincé par le temps ak lii nii.